jërëjëf ami internetu pour ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel euh, comme ni ñu koy di waxee saa su ne rek di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di euh, ñaanal ñi nga xamante ne ñooy aji daaw li yàlla yërëm leen te xare leen àjjana ñu nekk si hôpital yi yàlla na borom bi fëgg seen bopp ñu jóg waaye ñi caabi féete ginnaaw yàlla may leen ñu génn ñu nekk bitim réew borom bi may leen ñu am lu ñu indil njaboot bi tey nag gis ngeen li nga xamante ne moom la Arbouraax Events defati fee ca arène nationale defe naa ni c'est la première fois sax man ma gis làmb ju feesee noonu ay xale la boole waaye làmb ju si nekk grand combat la tey làmb bu nekk wane na boppam danañ ko waxtaanee euh, Doudou ak Bour Gueweul defe naa ni réaction Bour la ñëpp di xaar ndax am na la mu ñu waxoon avant làmb bi di daw ci diggante Eumeu Sène ak Sa Thiès insisté na si Sa Thiès mooy tuul ma erreur boobu ngay def sa diggante ak. ki nga xamante ne moo di Eumeu Sène boobu balaa boobu dama koy bàyyi mu nuyoo ba pare Mbour maa ngi lay ziara. jërëjëf Doudou ñoo ngi lay nuyu yow tamit vraiment di féliciter toute l'équipe de Bipro Média ci couverture bu am solo bu extraordinaire bi ngeen xam ni def ngeen ko ci làmb yi ñu génn surtout ci grand combat bi euh, di ci njëkkee rek la DG Wagan Diouf ah Doudou Z ak beneen boobu nu mu tudd sax. Franc Franc vraiment di liggéey bu extraordinaire. te amuñu nag moyens yi gars yi am wax dëgg yàlla mais quand euh, ñu ngi sant yàlla xanaa rek di julli ci alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu waajur bu jigéen foo mu tëdd yàlla nag fa yërmande suñu borom fekk moom ak kum fa ak ko fekk di ñaanal suñu waajur bu góor yàlla bàyyi ko fi ak suñu tànt di feddali suñu njëbbal ak suñu yaakaar suñu buntu cheikhul xadim cheikhul xayri mawlaana cheikh ibrahima mbàkke ibn sëriñ mbàkke madina di ko ñaanal suñu borom defal ko ridan barakatan wa rahmatan fi barakat cheikhul xadim sëñ Cheikh Madina mi nga xam ne tey moo toog jotaay borom Madina <coughs> jeen bu diis bi nga xam ni ku borom attanu ko ñaan yàlla na ko borom taawule di ndokkeel borom jotaay bu taar bi doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Amadul Mokhtar yàlla bàyyi ko fi yàggal ko fi waaye du di ndokkeel góor ga woon illaahi kalimatillahi luliya Cheikh Mouhamadul Mountakha ibn Cheikh Mouhamadul Bachir mm-hmm. ba naal yu rëy yi mu naal Cheikhul Khadim lépp yeggee ci kanam te mu ànd ci ak murit yi waaye di ndokkeel mbokkam ma si doomi cheikhul xawmi Seydi Boubacar si yàlla bàyyi ko fi yàlla sàmm ko waaye di ñaanal doomi Seydina Mandione Doudou Makhtar laay moom mi toog te jotaay Seydina Imam Allah di ak ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mahi di ko jàlle ba tey rakam jo Cheikh Mouhamadoul Aqib di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana di ndokkeel waa Thiénaba di ziar waa Ndiassane waa Jaamal di ñaanal njabootu Cheikh Oumar fuuti yàlla bàyyi leen fi Cheikh Mouhamadoul Bachir waaye di ziar waa jàngu bi du di ziar ñëpp yow tamit du vraiment di la waaye di féliciter waa Alburax surtout mon ami mon frère Baye Ndiaye xam nga Baye dañu yàgg ànd ci événement sargal jigéen Baye ko fi njëkk initié ñu ne woon lu sotti boobu la presse en ligne mel woon nii boobu y avait que Dakaractu Sénégo Seneweb ak Leeral. mais Baye xamoon na ci yenn nit lay compter sur chaque événement événement bu budget bi réy ci say bët Baye xam na yenn jalon la war a teg pour mën a régler événement am tey événement bu toll nii d'une grandeur nature bu toll nii vraiment su dee mës na fi amit benn yoon la vraiment il a marqué la pas d'abord castingu combat yi mm. moo extraordinaire ñi mu boole tey bu leen tëggoon ñoom ñëpp ci ay journée esat mel ni mu mel jëlal Mor Kankang Tafa Mbër jëlal Petit mbaytin baari Baari Baari Kirikou hmm? Liss Ndiago Pokola ba ci grand combat bi wax ma la signature de contrat bi donc bàyyi dañ koy ñaan mu yeggali la ma ko ñaan lool rek ci komba bi man suma xarit la sans intérêt ni rien suma nit la parce que ñu ngi bëgg a yàgg nag man ak moom. dëgg yàlla ñuy famille boo xam ne dañ ma jox cër cër biñ ma joxit ma delloo leen ko li commencé ci Masata. di suma xarit sànq laa koy tooñ ñaan ko Baye ak Aziz duñ samay xarit di waaye suma xarit grand Masata Ndiaye grand bu baax. nit ku yeewu. nit ku tedd. ku sell nit ku rafet jikko. Abdoulaye Ndiaye ñëw na ko dandu ma moom tamit di kenn ci man kon Baye. ñu ngi koy wax félicitation ak Alburax l'équipe digitale de Alburax mm, liggéey nañ ci liggéey bu extraordinaire waaye mention spéciale à Alaaji Fadam Tout Doudou Fadam dafa jaay cette affiche là d'une façon extraordinaire ñun ñëpp ñu ngi ci woon certes mais Fadam s'est donné corps et âme pour la réussite de cette la mm. te loolu à travers ma voix foog ñu félicité ko. vraiment ci loolu Lutte TV aussi ñëw Buzz ak son équipe comme d'habitude Aj Bekay ah waa pencum làmb ñoom Bour Gueweul Babacar Aj ñu def ci ay liggéey yu extraordinaire la presse en ligne ci liggéey bu catastrophique bu bu xam bu jéggi dayoo ba ci suñu nekk ci tere yi Lamine Samba hmm, Malick Thiandoum le doyen Rayba ah El Hadj Ngagne Diagne Mamadou Diouf Max Mbargane xam nga burgeel bu njool gars yi liggéey ci liggéey bu extraordinaire bàyyi compter ci ñoom ba moo tax tey mu am réussite bi du tey am vraiment. moo am réussite boobu noonu nga xamante ni vraiment comme niñ ko waxee rek euh, dafa am solo alburaax seen liggéey euh, yàlla nag jëm kanam ndax tey stade ni mu mel mi ngi door a am arène nationale. Mm, Ama Baldé bëri na fa ak Modou Lo Balla bëri na fa waaye taxul ni mu mel tey alburaax ñi mu jaxase ñoo di mel. waaye buur damay ñëw ci li nga xamante ni moo di combat duñu yàgg dañuy def redivision rek débriefing bu gaaw ci diggante ki nga xamante ni moo di Mor Kang Kang laay tàmbalee ak tafaam <laughs> combat bu neex la bu extraordinaire xam nga Doudou Mor Kang Kang dafa jóge ci benn défaite bu amer di ci diggante ma Youssou Ndour ñëw donné à fond bëgg a wane ak njàmbaar Youssou Ndour nax ko daan ko te Mor Kang dafay xale boo xam ni qualité yi mu dajale ci làmb moo bari Mor Kang bokk na ci mbër yi ëpp public ci làmp ci ndax bool boole dañ ko gëm dañ ko bëgg Mor Kang bokk na ci mbër yi gën a saf xorom ci làmp ci man maa ko njëkk gën a ràññee keroog bañ muy def signature contrat mook Vidacia mu nekk xale bu extraordinaire nee naa Mor image ma rappelle les débuts de Gouye gi chaque jour ma même fukk bi même dégagement bi dañ ko nduru ci côté yëpp dafa mbër jóge ci ndam diggante mag Liss Ndiago dóor ko mu daanu mais dafa mbër gis nañu keroog open press mu jooy ne mbëru parcelles yi dañ ko abandonné dañ ko nang maanaam mais man gisuma woon loolu parce que boobu pour man euh, dëj bi moo taxoon man suma xalaat ah, ba dafa tombé. ak jour enterrement per Gaston man loolu laa gis mais quand même néanmoins te dafa mbër indi na fulla duudu ndax fa ko Mor Kang Kang sori na une mm. fois mais la force de Mor Kang vraiment était irrésistible dafa mbër yegg na ak Mor Kang foo xam ne vraiment làmbam yàqu na te man je l'ai mais dem nañ ba yegg foo xam ne nee naa Tapha Mbeur pare na ci làmb ji donc félicitation à Mor Kankan kenn mënu ko bañ ci làmb ndax xale yi kenn mënu ko ci Mor Kankan c'est un produit rare du de la lutte sénégalaise un produit li ci moom ci moom rek la nekk na liggéeywaat masse bi su ma mënee génn na génn sax dem defaru ba jekk mais Mor Kankan fi gars yi toll nii du du fa la jëm. te bu ko yàlla dimbalee dina fa yegsi. fi gars yi jëm fa la jëm te bu ko yàlla dimbalee dina fa si damay ñëw ci beneen combat bi nga xamante ni moo dox ci diggante Liss ak Pokola buur am na loo marqué woon ca apprenti foo ko tegoon. di mm-hmm. insister mm-hmm. ci ki nga xamante ni moo di Pokola. Mm-hmm. Pokola day joxe kanam bi san garde mais bés yaa ngi koy wax tey sànq encore une fois insister nga si ne bés dina ñëw dina am ko ko si dóor. ba mu log làmmiñ bi dina am ko ko diggante Pokola ak Liss xam nga Doudou dañuy wax d'abord félicitations à ñaari boo yooyu parce que li ñu wane tey ci bés ci combat spécial gëj na am arène nationale wane nañu jom wane ngarmi wane fulla wala fayda Pokola ñëw na Pikine gépp tungoom ko xale bu saf xorom la dudd xale bu am charisme làmb la Liss Ndiago keroog ba ma ko gisee ci signature ba laa ne Liss dafa ñëw pour bañ defe naa suñu vidéo démb wala bërki démb wax naa ko nee naa ko Pokola liis dafa ñëw pour bañ te dafay bañ hmm. xëy na buñ koy analyser techniquement mooy que benn combat la bu ñaari chute bu njëkk bi Pokola dafa dóor Liss mu daanu beneen bi Liss jël tànk Pokola dëj ko mais loolu comme arbitre la ak seen règlement wax dëgg yàlla mënuma ko mënuma ko commenter mais dama njëkkee d'abord ci Pokola Pokola dafa donn ak mbër Doudou donc suñ ko bëggee dimbali nañ ko wax la vérité en face. Hmm. Doudou Pokola dafa doon mbër ñaari yoon Pokola baayam asmaay mbër la woon Pokola waajuram wu jigéen Kumba Balde doomi champion bu mag ba la woon Faalaay Balde borom ginteeg ca rek ndawal yàlla na ko yàlla yërëm amiin j'ai làmb du affaire guerrier du nee la ba tàyyi waa Faalaay bu ñu amee benn toor ci làmb mooy am fit ba mu ëpp te làmb nag du affaire de fit du affaire géré làmb ay pexe la mooy ñaari mbër bu ñu dajee ku ci ne da ngay bëgg a nax sa morom pour daan ko donc du affaire yi te kii di Jacob Baldé kii di Pokola dañuy bëri ci ak yi te bu ñu bëggee sori ci làmb il faut ñu jël esprit bale teg ko fële Doudou Pokola est un vrai produit de la lutte imagineel Pokola mooy génération bi dekkalaat yeneen génération future Pikine li koy topp du ñu topp sax mbër mu mag mais am kanam gaa ngi ni dóoral loolu laa mënul supporter su fekkee ni que bëgg nañ ko def un très grand champion. Hmm. nañ ko jàngali xeex bu jaar yoon. Pokola guerrier la bu dugg ci làmb waaye mbër gi ñëwagul te mbër gi moo war a ñëw. Hmm. parce que il a ça dans le sang. mooy mbër gi moo war a jiitu à la place de jikko ji jikko ji c'est autre chose. ok ok ndax wolof dafa ni. lu waay donn mu dëgër dafa bëre ak gàkku de gàkku am fu mu ko yegg keroog ma diggee sama jigéen ku ma bale dafa ni Pokola du ragal boo ko doon dóor fii ba suba du daw déedéet Pokola suba dafa war a signé combat cent quarante millions dafa war a signé combat cent vingt million parce que il mérite li daje ci mbëru cent quarante millions dafa daje ci Pokola mooy bari jom ñime nekk xale saf mbër bari mbooloo macha allah yàlla daf ko ko jagleel Pokola est un nouveau phénomène de la lutte sénégalaise donc mënuma accepter tey boo leen doon peese moom ak Luis Pokola moo ëpp masse ci combat bi te jël na ci ay coups yoo xamante ne que bu xeex bu juboon Pokola tàqalikoo na ak Liss njaago bu yàgg mais coups yu Pokola doon jël laa mënul accepter Liss di xaaj gardam bu miimee gu droite bu dóor ko gauche. ay direct yu leer. ay direct yu loolu laa mënul comprendre parce que nii muy ubbee gardam bii di joxe kanam gii. bu mu ko jàppee yëfu guerrier erreur la xam suba dana dajeeg beneen adversaire te Pokola li ci kanam ci làmb mooy gën a metti bu dee am dóoral waaw dinañ ko mësoo dóor ci géew coup nekk benn coup bu fatal donc dama koy déconseiller suba jarbaat la sañ naa ko conseiller te dama gis ni que am na wàll ci lam na corriger sa façon de se bagarrer ni muy xeexee ci làmb neexuma benn yoon bugguma ko parce que faay yi dafa bari donc indi na résistance parce que moo tax coup ci bari yi mu jël yóbbu ko à yóbbu ko à moo tax def na recul am na benn instant li xoj na ko mu teg deux poids génn saa. résistance a tax daanuwul. mais jël na ay coups yu ko yóbbu kaw donc bu mu ni man guerrier la bu mu ñëw teg fit bu mu teg bandi làmb du foofu gone foo yu génne téeméeri million du foofu gone te il est sur la bonne voie pour que la Baldé donc il doit Jules Baldé rek bu la wëree macha allah am nga staff bu baax les Pape Sarr gars ñu ngi koy wër les Pikine Dakar te staff bay wër Ama Baldé les Abdou Bakhoum ñoo koy wër mais su amee lu muy rectifier mooy façon bi muy xeexee moo baaxul. c'est la énième fois ma di ko seetaan. Pokola ngir yàlla ak yonent bi. demal centre sauvegarde bu pikin wala nga wuti un maître boxeur mu jàngal la les techniques de boxe Pokola bu rectifier boppam duudu tuuti ci côté boobu mooy buy dóor di dóor ay coups baax pas ay coups yu siggil pas ay dóor xeexu mbet déedéet mais di dóor di def ay déplacement am garde bu sûr parce que Cheikh day dégg dàll ci lam Liss Ndiago démb dama ni Pokola liis ñime na la te man je ne comprends pas ba jusqu'à présent liis fan la teg ba ñime la ne ko Pokola moytul Liss njaago am na argument yu la sax mën a daan te effectivement argument yooyu tey Liss Ndiago teg na ko mooy tey Doudou Liss Ndiago a surpris tout le monde du surprendre rek ñu yàgg dem làmb Liss fekke na à ses bi ba jusqu'à présent su amee benn défaut mooy Liss masse bi tuuti masse bi moo baaxul te Liss xale la il peut faire mieux que ça combat bi nag daf ci daj ay coono man dama ko gis deux des génn Alioune Gueye <laughs> maanaam ma ne ko sa boy bi daf tey coono ci kobaa bi na na jéem a euh, reposer wu tuuti tuuti tuuti tuuti noppalu tuuti Luis était déterminé Luis dafa ñëw tey ak engagement ak ngarmi mi boo xam ne duudu foo ko natt romb na fa tey Pokola moo am ndam mais Luis am na ndam nag duudu parce que fi mu jaar ak Pokola ku fa jaaroon ak pokola takk ban par rapport différence de pois bi ñu am ñoom ñaar liis gëm naa ni que mu ngi ci buntu doon mbër liis bu njëkk ambianceur la woon xale bu doon mbooloo mi nangam nangam mais liis il il commence à devenir un stratège parce que tey stratégie la bëree ak Pokola bi mu jëlee ko bi mu ñëwee Luis dafa aborder combat bi ci beneen façon te coup ba mu jël sax du yoon parce que bu doon ci diggu géew bi la day dem terre mais wane ni na ne que il est entouré de vrais professionnels du du ngar mi gi ci Liss moo ma dépassé tey tey Liss Ndiago jom ji mu indi ci làmb ji moo ma dépassé ak sérénité bi mu indi ci làmb ji Liss était plus serein et plus calme boo xoolee bi mu bàkkoo ba pare mu nga ci mu avant combat bi étirement lay def échauffement étirement échauffement ba lambe jot mu sumeeku Liss abordé na tey combat ci façon boo xam ni ñun ñu ko yàgg seetaan mosuñu ko gis mu abordé ko combat mais li wóor bu wóor bu wóor s'il continue dans ce chemin là avec sérieux Liss dana dégg daal yi te est-ce que gars yi duñu constat diggante ak Pokola. ñu ñamaat ko ah, ñamaat man si j'étais Baye Ndiaye. benn journée laa koy def Liss Ndiago Pokola parce que dafa am lu ñu indiwaat ci làmb du tey buntu stade comme fada entre les supporters de list Ndiago et des xëy na c'est des images déplorables mais dafay wane ñaari xale yi ni ñu ñimantee du tey seen combat combat ñaari jàmbar laa gis combat Pokola Baldé ak Liss Ndiago donc filicitation lañ leen di wax dañuy wax félicitation Pokola ndax moom la ñu ci loxoom donc dañu gëm ni que il le victoire maanaam il est le moo gagné donc filistation lañ koy wax di wax di courage à Liss Ndiago jëf nañ ñoom ñaar lañu waroon a jëf ci jom ci fulla ci ngar mi donc ñu ngi leen ñaanal seen làmb ngi ci kanam ndax ay xale yu tuuti la ñu ah xale bu tuuti la sax Liss xale bu tuuti la. donc mais fi ñu yegg ci làmb ak liñ jot am ci làmb. VIP yu bari am ñu ko. lu ma. looy ree Dudu. waaw bii de ni mu annoncé woon nii. newoon naa la. ñaari xale yi. waaw newoon naa la semi combat la Ama Baldé Siteu. semi semi semi ah. la. semi combat la ah. Dudu. te lañ si picc pacos bi ñëw na nag. te sëñ am Ama ñibbi si mën a muñ combat Pokola Ama Baldé il est dans le sérieux Doudou non il est dans le bu nekkul woon dans le sérieux day ñëw na SR sol kilool njaab xam nga dafa mën a bandi bandilu nag xam nga genn warome bu yee yaa fii xam nga ba sëñ Saaliw mais <laughs> wane na ni que l'explique ko paakos bi Doudou mu ngi nëbb boppam ah. te loolu nag moo ko war loolu moo ko war dugg. mi ngi noonu Zé waxtaan wi neex na trop trop trop gis nga fi ma ko dugg nee naa ko fi may ree xam nga ko ndakate buur jëli na ma dama xam ne li gars yi daj tey ci buntu stade bi ci diggante ki nga xamante ni moo di Pokola ak Liss njaago yombul. tey njaago bi ñëw na wane boppam waaye Pokola mbaam bi <laughs> tey wane na boppam moom it ci supporters yi wane nañ ko waaye ci biir làmb ji tamit wane nañ ko buur dañuy jëm ci li nga xamante ni moo di grand combat bi Eumeu Sène ak Sa ah ñu dem signature ba pare door a tëjee ah, loolu waaw kon ñu dem si Simba rek Simba mi nga xamante ni ñëw na en pleine forme nag buur. Eh, <laughs> lay bëgguma wax Doudou. <laughs> waxal rek xam nga gars yi bëgg yow ngay wax. <laughs> xam ak Tapha dafa am fu ñu. fu ñu jaar xamante nañu. bu baax a baax a baax te Balla Gaye bi mu bàkkoo bilaay maa yeey tuddee ko Simba le lion d'Afrique te j'ai vu Doudou un Balla Gaye bu souple un Balla Gaye bu moom yaramam par rapport ak at yi ci gannaaw. Euh, Balla bu jikkoy mbër mbër gi ñëwaat Balla boo xam ni la mu liggéey ji woon INSEPS ak li mu soxla ci combat bi bu ko amul à quatre vingt pour cent amagum na ko pour l'instant à soixante-quinze pour cent te bu fekkee nii la a tenu sa promesse mooy delluwaat INSEPS boo ñëwaat dana am lu mu dolli ci cere ji Doudou Balla Gaye 2 ñi mel ne Tapha Tine Balla Gaye lam doon wax dara change wu ci wax na tey ne ko barki Serigne Saliou Mbacké dama lay duma Balla Gaye 2 Doudou ndoxtu bëre moo dangereux dama la xam ne Balla Gaye 2 est le bokk na ci mbër yépp xam-xam ci làmb ci du damay wax ni ñi mu dajale daan leen benn mbër dajaleegul ñu mel noonu daan leen duudu maa daan Yaxya Jóob rek doy na sëg ndax Yaxya ñi fi mën la daan maa daan Mohamed Ndao Tyson maa daan Baboy maa daan Moustapha Gueye donc ñi dàqoon bëri ci làmb ji daan na leen. c'est ça la réalité. te benn rival la am ci àddina muy Modou Lo segam moo mën liggéeyaat ba nekk à la suprématie wala au sommet de la lutte. Balla Gaye de loolu toujours dafa am lu muy def ci moom mooy yoon wi Modou Lo jaar tey ba taxaw fi mu taxaw situation bu confortable bay na te ma daan ko ñaari yoon pourquoi pas man Balla Gaye de war mu mën a jaar ci yoon woowu fu mu Lo demee bay bëreeg Siteu mi nga xam ne sama rak Sa Thiès moo ko daan combat royal te man Balla Gaye de dama war a ñëwaat man dem na lu ma waxoon ca Gàmbi. lu ma buur. lu ma waxoon de. lan la la wax. bi lay am na lu ma waxoon. Simba lu mu la wax. <laughs> nañu bàyyi noonu. pour wax ma rek Fawzeyni lu mu la wax. duur nañ bàyyi noonu waaye il est bien dans son corps. man du dama bëgg mbër buy dégg samay wax parce que awma benn intérêt ah. ci wax mbër lii wala laawal nangam damay bëgg li leen nit ñi di jaayee te du dëgg ma dimbali la wax la dëgg parce que de ces derniers temps là saboté naa ko attaqué naa ko ñaawal naa ko mais il a très bien compris le message ay supporters am mer nañu saaga nañ ma ay ndey. mais dama xam ni ki ma doon waxal borom jom la tey su ma communiquer ak moom de cette façon là mm. dana jaay bakkanam parce que daf may bàyyi xel Doudou Balla Gaye 2 est un produit de la lutte un produit sûr qui ne mérite pas de disparaître Balla Gaye 2 dafa war a des ci làmb mais pour mu des ci làmb il faut que mu nekk dans le sérieux te wan na ne guddi yi mu toll il dans le sérieux mooy ñun ñi ko gis ñëpp te esat d'accord nañ ne ko Balla Gaye di gisatoo ci moom koll gisatoo ci moom ay fàmb ak i biir ak ak i nàngam gis nga ci moom forme bu correct donc loolu lañ ko bëggaloon en tout cas ñu lui disons félicitations parce que il a compris le message dem na wuti ko tey bu ko amee du ñun ñoo koy am mais dañuy xam ni Balla Gaye 2 bu nekkee tafaati nekk du dañuy assister ci benn combat bu coq bu neex boo xam ne amateur yëpp dinañ ci bëgg kon nag ginnaaw maa ko tuddee woon Fawzayni Doudou wutal naa ko tur bu bees tuddee naa ko Simba le roi lion daan nga seetaan Simba ah, ah, le roi waaw le lion est que dana ko confirmer yegg guñ ci waaye saakande laa am di Moustapha Doudou tey wax na bu yuuxu ca kaw. Ah, waaye Doudou. Hmm. champion. boo xam ni ces dernières années yay na boppam. mooy Tapha s'est dit dans la tête attends fii gaa ñi yegg si su ma jaaram ci yoon bi maa leen fa jiitu du Tapha ni mu toll ci làmb ji amul benn mbër bu ko toll moo ci ëpp. ci taille ak ci poids des fois dañuy waxee moom ci benn façon bu très critique mm, mm. ñoom grand cuun duñu ay ngaaka ñoom père mbay ndeewaan duñu ay ngaaka te danañ ma déglu danañ bàyyi xel duudu ceeg bi nañ ko corriger ba pare bëgg naa ko ci muy benn ñaareel bi duma ne ñi ko yor du ñooy professionnel de wax dëgg yàlla ak yonent bi du ko wax waaye Tapha Mass bi diis na tey je l'ai eu en di ko xool su rectifiewul maas bi fii ak datu làmb ja bu ko Balla Gaye daanul mooy daan boppam xaw ma si comprendre li mu wax maanaam ñibbisi na na dem ca Baye Mbaye Mbaywaan xaw ma Mbaye Ndeewaan ca école ba nag du takk ngemb nag ñu ngi ci mois de mais juin ba dugg juillet xale yaa nga fa ñoom Ndiaye te ni nga fa ñoom tafaaleer a fa booy yaa nga fa tafaatin fii ak làmb ja dul waratul def musculation. fii ak làmb ja Tapha Tine souplesse la war a liggéey lum ci dolli bu jàjjoo rek dana am jafe-jafe pour bëri ak Balla Gaye 2 parce que Balla Gaye dafay jéem a dugg ci gardam parce que xam na ni ëpp ko doole mais daf koy jéem a brouiller pour juumloo ko donc il a largement la temps pour dem contact yi dëgg la le bodybuilding c'est c'est bon wax dëgg yàlla ndax ay professionnels la fa àndaloon defar nañ ko il est bien musclé dagg na punkal la mais attends bu mu indaalee cet esprit de bodybuilding ci làmb ci làmb du bodybuilding dafa bool bool la reefaan gii la dëkk diggante reefaa reefaan nag kabaak ci la ci la wante ci la buubu xombal nangam nangam bool bool piir la xam na làmb ak toutes ses réalités te Tapha Doudou dafa war a récupérer sa position mooy tey Modou loo da ko boros puus ko mais combat royal bi Tapha Tine moo ko waroon bëri. ok mais la Modou Lo waxoon la ko laajee mu ne moo gën a neex a bëree li tax moo gën a neex a bëreel. mooy dañuy jàpp ni que dafay jël masse boo xam ni bëri ci ak moom boo amee yenn déplacement yi ak yenn vivacité yi daf koy juumlu dal na ko diggante ak Eumeu Sène ay wax day leer donc nag li ma koy conseil man Bour Gueweul Mbaye Moussa mhm. est un très grand champion mu bëgg laaj rek mooy li tax chaque jour Balla di ko grillé si ay parolam waaw parce que Balla Gaye dafa soxla la bataille psychologique parce que gis nga du sport de combat du football nga yow bu ngeen duggee ci versaire yi dinañ leen teg ci tactique teg leen ci technique teg leen ci aspect psychologique loolu dafa dafa dafa baax ci kii compétir tey Tapha sax a répondu aux provocations de Balla Gaye 2 mooy bi tafaa yu xootu du ko fëgg dënn sabaram da ko daw barke alxuraanu karim sabaram dafa daw te tafaa dafa war a yoole ba Gaye dee ci combat bi mais bu garder set masse la ba bés ba pour mu yoole ko dana jafe ok donc na dem nag dem na liggéey na doy na na dem takk ngemb li kontaagi ak xale yi ba bés ba bu ñëwee mën na am dara duudu ba bés ba mën na am dara fi ñuy jeexalee rek mooy grand combat bi ci diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ne moo di Sa Thiès euh, am na wax joo xamante ni gars yi bàyyi si woon xel Sa li ko daanoon contre ki nga xamante ne moo di Boy Niang dañu ne Pikine authentique moo ñëwoon biñ koy daan tey Pikine authentique bi moo ñëwaat ci digganteem ak ki nga xamante ne moo di Eumeu Sène waaye buur Pikine authentique bi ñaari ndam la am tey hmm. ça veut dire que mooy li ngay tàmm di insister Pikine bu ñu boolowee xajuñu ci kaw kenn damay dégg nga koy wax léegi tey dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy Eumeu Sène bi mu tourné gis ci wetam Boy Niang naka la ko def waaye Eumeu Sène kii euh, Sa ñu baal ma bi mu tourné gis Balla Gaye si ginnaawam naka la ko def. Eh, buur ñaari jàngat yooyu. laa bëgg nga décortiquer. xam nga Doudou <laughs> des fois. làmb boo ciy wax li ñu bëgg dégg la ñu bëgg dégg. Hmm. mooy maanaam buur di wax ci sa mbër. bu la arrangé wul wax ja du la neex. su la arrangé nga ni noo buur a fi mën. su la arrangé nga commenté ne buur tapit aw saaga ndey. sport dépassé na niveau boobu dama la ni woon Sa Thiès muy bëre grand combat Balla Gaye 2 di ci wetam poids la wax naa lu mel noonu parce que benn ak bokk dafa diis ñaareel bi ki muy bëreel dafa daan magam ñaareel duudu keroog bi ñu. taxawee ca face to face bu njëkk bañ def place l'Obélisque dama posé Sa Thiès benn question boo xam ne neexu ko te je sais neexu ko mooy est que respect bi nga jox Eumeu pour daan ko dana yomb par exemple j'ai vu que Sa Thiès mettre na Eumeu Sène situation bu confiant mooy sama mag sama nàngam déedéet Eumeu Sène booy bëreek moom jikko ji ngay indi. jikko ji nag mënuloo ko indi te vexé woo ko am na jege ñaalam bu ma woo Moussa Fall ne ma buur ah sa waay jële léegi bu démb dañ ko ngi leen ko wax ma ne ko li ma ko wax muy dëgg bu vexewul Eumeu seen ba indi jikko ji dana am ay problème ak dig ak diggante ak Eumeu Sène parce que loolu mënuma admettre waa ji du géej waay def fa lam fa def bu ngeen daje nga xoolal ba ci biir géew bi Sathies mu ngi wax ak Eumeu Sène di ree il a mis Eumeu Sène dans une zone très confortable il a voulu sax changer un peu de ton mais ce n'était pas du tout très sérieux mooy ma da koy vexé gis nga Tapha bi mu bëggee am ndam suñu bi mu fëggee am ma fëgg ko fëgg ko am ma ba na dernier face face mujj ba la TFM dafa yee ko ji ëmma xataraayu ñëw indaale loolu ci bés bi loolu un la ñaareel bi dama noon bu lépp jaar yoon ci Sa Thiès moo war a daan pour plusieurs raisons mooy qu'il est le jeune normalement mm. ambition yi nekk ci kanam bu Sa Thiès mënta daan Eumeu Sène na jël ambition yi teg fële mais lu ma ci doon teg su ko moytuwulee mhm. Eumeu Sène dana ko saay saayee. insisté nga si su ma ko su ko moytuwul dana ko saay saay cela veut ba bi ñuy mujjee toog deux heures tu sentir ni que mënul xool sax Eumeu Sène bu mujj gi ne ko. ñëw ak nangam nangam lépp bipp mooy Eumeu Sène dafa génne Sa Thiès ci stratégie nee na ko ni ngay bëree soo ñëwee rek ñu daje dana neex mooy bëgg na Sa Thiès changer stratégie ndax Sa Thiès boobu ni prix rek mënoon ñor mit ça téléphoné ndax boobaa Eumeu Sène li mu doon wax dafay am mais quand man dama gëm ni que Sa Thiès a bien débuté le combat Doudou man maa ngi dégg ñeneen ñaan waaye buñ ko bàyyi loo maninam na maanaam maanaam Sa Thiès bu demoon sax ak maninam ci lay gën garaaw hmm. Doudou si man d'accorduma ma seen du mbër mooy jël ak vitesse parce ñoom ñaar déjà dañu dañu dañu dañu tolloo ci taay te ma keroog nee na ko maa ngi soog a toll ci sama diggu doole du kër bi mu jógee ma xool xool ko si lu ma la wax waa ji am na doole tey bi mu dugg see dama la xool ne dudu kii lii mu indaale saa bu ko mësee indi ci bis du ñibbi te yóbbaalewul ndam boobu mu ngi dugg xam naa gars yi nañ seen maanaam bi ko bi ko see mais ça a bien débuté le combat mooy bi mu ñamantee ak Eumeu Sène effectivement saa bu xeex bi tare dafay delloo si bëre bi c'est normal mais erreur bi mu def bi mu demee ba del si dafa ni lii baaxul xaaral ma jël la ma daan def. mu jugee bi mu demee ardo. ba ñu xool ko loxo demaat bu ngeen saane reportage bi. dama ne Sa làmb mu ngi bëgg a yàqu parce que ama seen boobu sóor na walla xam na ni. droite non non droite bi sax. Sa Thiès dootu ci xeex. jëse fay na droite bi Sa dootu ci xeex. donc ma seere ko seere ko gauche. ba pare ba pare jege ko parce que xam na ni su ko jegee Sa Thiès buy dóor dafay tëb te saa bu dóoree dóor tëb daf koy daf koy gën a jege moom Eumeu Sène daf koy gën jege donc saa da miire ba doon miime droite bi pour xeexee gauche bi mooy signalé na ñaari yoon ni baaraam bi bon le médecin mooy la personne le mieux placée pour xam est-ce baaraam bi damm na wala dammul mais l'erreur qu'il a fait Doudou l'erreur monumentale mooy dafa dafa jegante ak Eumeu Sène te bëriwul Eumeu Sène daf ko jiitu ci bëri bi comprends nga li ma wax Eumeu ko jiitu ci bëri bi te ma seen bi mu ko jiitu ci bëre bi ñu ànd ñoom ñaan jargandelu bi ñuy jug saa siiwurul man bi ñuy jug dama ne ëmma bu jugee ci ndigil la jëm ëmma takk ko nag te bi mu ko takkee xam na ni effectivement am na ko donc Sa Thiès ñaan nañu léeg-léeg nga dégg ku ne nii la waroon def lee la waroon def mais pour man Sa Thiès amatul woon possibilité. mais yow bi ngay wax naan Eumeu Sène na am na Sa Thiès na moytu Eumeu Sène ko fenn yi. waaw parce que bu ko fa yeggee daf koy daan. yegg na ko dafa saay saayee Sa ba daan ko mooy def ko nax ba daan ko du dama leen Eumeu tey bu arrière wala mu def leen dañ mën a jaaxal Sa daf koy jaaxal ko parce que bokkul ci maninam alaaj sàppale di chaque jour Eumeu Sène dafa war a ñëw indi stratégie. ci combat bi effectivement dafa indi stratégie ci combat bi combat bi du combat ngar mi bi du combat jom combat bi du combat fit mais combat stratégie la donc Eumeu Sène capitaliser na loolu ñëw indi combat stratégie bëriwul ak xale bi ci doole bëriwul ak moom ci maa la dàq xeex maa la gën a gëree mooy dafay teg ay stratégie ay note la bëree combat bi note ci kaw note bi ñu njëkkee xeex ñoom ñaar kurpañ yi dalante du dama leen woon Sa démb rek wax naa ko su ne bërit di defi dara te première action ba su ko amulee su delsiwaatee du indi ay argument wax naa lii mm-hmm. mooy chaque jour première tentative bi muy bëgg def wala initiative bu njëkk bi muy bëgg def ci làmb su ko pertee rek su dellusiwaatee dafay nekk dans le doute donc euh, ndaanaan daanu na ak lu mën a am ama seen jeexal na géejawaay quel soit alpha situation bi Modou Lo am biir Pikine moom la am a seen am biir géejawaay mooy ñi fa dàq bëree la daan Balla Gaye 2 deux fois Lac de Guiers 2 benn match benn victoire tey daan na Sa Thiès mi nga xamante ne que il est le porte-étendard de la ville de Guédiawaye léegi nag defetu Sa Thiès lan la ko mën a jural ak victoire ëmm lan la mën a jur. mais euh, Eumeu Sène assisté bi ko Boy Niang assisté. c'est normal du dama woon Pikine ay russe lañu. saa bu ñu mànkoobee xaj ñu ci dara mais saa bu ñu xàjjalikoo dañuy faible keroog ci open press ba gis nga nañ ñëwee laala ni combat bi a seen def ci bénéfice wu benn affaire bu gëj Pikine mooy booloo Pikine Eumeu Sène keroog bi muy dem combat am kon Tapha Tine wéetoo lool wax dëgg yàlla yonti bi booy Niang keroog bi muy dajee ak Modou wéetoon na waaye tey grâce Pape a joué un extraordinaire mooy drapeau bu mu jël tuddee ko Ama Balde Boy Niang de jóge këram ñëw indi drapeau bi ñoom ñëpp ñu ànd pokola booy yooyu maanaam dafa am lu mu defaat ci biir pikin te duudu Pikine mooy Sénégal Pikine mooy Sénégal yàlla moo leen defal diversité boobu mm-hmm. maintenant Sa Thiès il a raté le train bi ko doon mëne directement ci yaa oustaz effectivement tey bu daanoon ci Modou Lo la jëm incontestablement kenn mënu ci dara mais malheureusement est-ce que Modou Lo dana ko jëlaat si tient sa promesse damay bëri samay rakk. effectivement Sa Sa Thiès xaj na ci. ok mais est ce que est ce que il le fera. est ce il le fera kon nii mun nañu ko xaar diggante moom booy. Bombardier mm, gëw ma ne Bombardier dina bëriwaat yaakaaruma ko sincèrement parler te Sa Thiès boo xoolee fi làmb tollu tey un Gris Bordeaux un bu fekkee. di nga waaw l'issue du combat Balla Gaye 2 Tapha Tine. koy baara ci yenn. adversaires yu bëri mais quand ki ma gis ni mooy làmbam c'est France c'est Émile François Gomis. mais bu est-ce que France dina jël Sa Thiès ak ni mu daan. ah mais oui moom la war a jël ci yoon combat France Sa Thiès combat du ko dàq duuti ci àddina. combat du ko dàq ci àddina Franc am na possibilité tey bëre ak Sa Thiès wala mu bëre ak Eumeu ñaari combat yi combat la Eumeu nag fi mu nii moo toog toogaa yaataa yimbeem ah, li gars yi naan yaay choisir mooy choisir waaye ñaari mbër yi ay exemple lañ war a doon sur la génération future mooy kii di Modou Xarañ Lo ak kii di Eumeu du dama seen par rapport a sonage âge tey la gën a ñemee entraînement tey la gën a sérieux ci li muy def tey la gën a bëgg son mutlo Modou Lo ma kazalika donc xale yi nañu emprunté chemin boobu te ma seen bu fi yemoon sax neex na def na li mu war a def ci làmb avec sérieux donc ñu lui disons félicitations di wax di courage à Sa xëj na defet bi metti na waaye langaaniwul mbër daa doon mbër mooy xam na lan mooy victoire xam na lan mooy ndam léegi nag Balla Gaye 2 moo war a sauver l'honneur face à Tapha Tine ah oui n'a pas le choix bu Sa Thiès daanoo mois de mai moom mu ñëw daan le juillet catastrophe la dul et puis waa Guédiawaye ni ñu ñëwee tey vraiment les Pape Mama les liiru Diane les Père Diaw les Moussa Fall les àndaw loolu si booru dafa rafet bu ñu ko bàyyi Saliou qu'il se relève vite ndax doomi dubalees la bàyyam la joolaay daan wooye njool ñu jug dem nekk ci entraînement c'est sûr que balaa yàggal bu raax dinañ ko dinañ ko jox beneen avance donc mu góorgóorlu xam ne làmb mooy gagne-pain tey amul un perdant amul amul un gagnant c'est le sport d'une manière générale wala la lutte d'une manière générale tey boo xoolee ndaw ñi ni ñu mën biir stade Doudou da xam ne làmb secteur bu ñu war a dooleel la làmb secteur bu ñu war a waxtaanee la pour wutal ko ay porox ndoll wutal ko yeneen yu yoon ba promoteur mbër amateur ku ne mën ci gis sa bopp. promoteur bi am ay moyens yu ñu ko jàppale mbari mën a am ay cachet yu baax amateur yi mën a am sécurité ba bu jugee këram lu ba rafet ànd ak jabaram ñëw ci làmb ji toog seetaan ba mu jeex ñu boot këram te gëm nañ ne que nag wax dëgg yàlla ministre des sports bu bees Khady jenn Gaye moom c'est un produit du sport donc xam na lan la làmb soxla parce que keroog teew gi mu teew kër Gaston rek. ak tout son cabinet wane na considération bi nga xamante ne ko jox na ko làmb donc dañ koy ñaan mu continuer sur cette lancée là xam ne jeunes yi nekk ci làmb ji ay sénégalais lañu yu fi juddoo am fi ay nday am fi ay paay yeneen sport yi li ñu fi am cër bi ñu fi am làmb cër bu ko raw sax la fi am ndax ku dul làmb dañ laa jéggaani indi la ci réew mi donc ñu ngi wax encore une fois Baye Ndiaye félicitations di féliciter aussi Sidi Diop il a il a assuré euh, morceau boobu rek tukkal tukkal euh, maanaam tukkal nam réew donc ñu ngi koy wax félicitations parce ne ànd ak moom Zénith nag dudd la vingt neuf ak suba teel musique sunu xarit Matar Diop suba teel di ko ñaanal yàlla defal ko ci dudd plein succès parce que si di xale la dëgg-dëgg te mën nañu wax ni bii mooy sortie bi gën a majeure ci carrière donc le Sénégal de la diaspora dañ ko war a jàppale mooy wuy si ko mhm. te mën nañ ko ndax Sénégal de la diaspora bu ñu àndee duudu xaj ñu ci kaw kenn sincèrement. Hmm. xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo rek waxtu bi. waaw mais duudu di gërëm suñu internautes yi rek xam nga. waaw fu ñu nekk ñu jàpp ci. léeg ñu juum mhm. léeg ñu def leen neexul mhm. mais suñu souci yëpp rek. souci yëpp mooy def wala tegal leen wala wan leen lu leen neex wala xëj na loo xamante ni que danañ ko danañ ko bëgg donc di remercier ñëpp di remercier l'ensemble euh, de maanaam de l'équipe de Bprod Média liggéey bi rafet na nice na gaa ngi ci dem koor sa am ah, waagaan félicitation Doudou Zé Franc lépp a ngi tegu ci axe nii rek la bu ñu jàppoonte booloo incha allahu danañu atteindre suñu objectif Doudou. jërëjëf.